champion combat Papa Sow euh, Siteu nan nga ko gisee. waaw ah, combat Papa Sow Siteu combat la rek Siteu mooy xale moo war a ñëw wane boppam rek. Ah. waaw mais combat la mu war a fonk nag parce que Papa Sow champion la Siteu tamit champion la kële meer kuy favori. instant bi Siteu mooy favori mooy mooy favori. Siteu ah, champion maa ngi hello Chiar. Siteu Papa Sow ñu boo ñu xoolee nga xam ne ñun ay <laughs> te ñun lu lu lu tarkindaa ñun doxuñu si Siteu mooy favori. mais amoo dara loo leen koy moytuloo si Papa Sow. non Siteu na ñëw na ko jox cër bu mat sëkk. ñëw dëgal boppam wane xeex bu mat sëkk duma ko daan ko jóge fi seeti leneen. Siteu Papa Sow noo gisee. Siteu di ñaanal Siteu ndam Siteu Papa Sow Sow sama doom la di ko ñaanal ndam bu baax dañ ci sonn lu mu laaj ñu def ko pour mu am ci ndam parce que lamb la bu mu warul ñàkk daal. di favori non Siteu mooy Siteu mooy favori. non mooy Siteu ay favori kay. ndax la non mooy favori. Siteu ay favori. gars mais na am ndam rek. xam nga yooyu yëpp ay détails na Siteu am ndam rek <laughs> après yooyu yëpp du feeñ. yooyu ay détails la. ay détails la ay diwa daax a xeex yooyu na Siteu am ndam rek man loolu laa bëgg quoi. Euh, Papa am na expérience te Siteu tamit boo xoolee mbër bu compétir la parce que sur le plan international gis nga temps yi li mu fa def moo tax combat boobu ñëpp dañ koy xaar mu nar a nekk combat waaw am na favori. favori. favori man Siteu laa ko jox parce que tarkindaa bi instant moo gën a compétir Papa Sow non Siteu Papa Sow combat bu neex la combat bu neex la cinquante cinquante amul favori non bu ñuy jox favori Papa Sow la ñuy jox favori quoi waaw Papa Sow Siteu noo gisee làmb la ku ne mën naa daan safarum combat la am favori wala non amul favori cinquante cinquante la rek ñu mel ku ne mën a daan sa borom Papa Sow nan nga ko gisee combat nag combat la. waaw. kuy favori. ah na Siteu mooy favori nag wante na def attention parce que boo leen xoolee Papa Sow moo ko ëpp doole. moo ko doole. fuuf. Papa Sow wax dëgg fa yàlla parcelle la dëkk tamit champion la tamit yàlla moo leen boole ñu bëree waaw dañ ñaan yàlla nag waa a Assainies unité 1 ba unité 26 dañ jàppale Papa Sow parce que Papa Sow doomu parcelle la Papa sama xarit la sama doomu ndey la sama lépp la. mais mais mais kuy favori. ah mais làmb tamit soo xoolee boo xool tamit da ngay xool ni carrément favori da ngay xool carrément Papa Sow mu jot def si làmb Siteu dafa ko. la ko kon nañu ne carrément Papa Sow mooy favori. waaw. jaajëf waaw jërëjëf. mais kii sama commune la ji. waaw mais frère Cheikh. dello ngi siyaar. na mën naa de. maa ngi ni maal raw. cey sama waaj. cey sama xarit bi Cheikh. looy waajal. lu may waajal. am nga combat de. am naa combat. Papa Sow. waaw am naa combat Papa Sow mais mais maa ngi si xam naa loolu xam naa loolu mais combat boobu combat boobu waaj waajtaay yi Hmm? wattaay googu combat boobu lan lay doon. lan wattaay combat boobu. lan lay bi ok man dégguma la quoi ñoo ngi si comme d'habitude yaa ngi may dégg Cheikh combat boobu dafa am solo de kan nga ma ñoo ngi si comme ñoo ngi si comme d'habitude mais dina ute ndax daam am si luñ jógee am lu ñu war a wane mais. comme ñun favori favori Papa Sow yow d'accord nga lool Papa Sow mooy favori kay. yow d'accord nga loolu jili waaw ah. Papa mooy favori parce que Papa Sow tey ñu mu bon moo jiitu Siteu si làmb fuuf adversaire yu mu amagum Siteu amagu leen mais garab si kaw lay fekkante en tout cas li am solo ba am solo mooy ñu ngi ñaan yàlla xaw ma kañ lañ koy bëree mais nee nañ du génn mois de mars bu taxawee yàlla na ko Siteu daan jël bu parce que xam nga rek làmb jooju. yee mënuñ si détail yenn détail yu bëri yow yaa ma gën a xam en tout cas Siteu yàlla na ko yàlla may ndam papa ñu grand frère la te xam nañ ne moom sax bëgg na Siteu nekk champion te si moom la war a jaar Cheikh jiri comme imam jibi dafa baax <laughs> Cheikh rafetal rek àdduna amul solo magu Modou Lo xaritu Modou Lo muy Papa Sow di bëri Siteu nan a gisee combat boobu combat boobu ah combat rek dañuy meg mani ñoom ñaar mani ñoo mën a mayante xaalis quoi combat am combat bi loolu moom xaw ma dara. <laughs> ma euh, kii Papa Sow Siteu loo ci gis. ah làmb jooju ah taxaw na de mais suma soñoon du taxaw quoi. ndax lan. non man bëgguma woon quoi wax dëgg yàlla. Ah. waaw ndax lan. non bëgguma woon quoi. favori. loolu. Papa Sow mais favori. waaw <laughs> lambu Siteu ak Papa la ñun suñu yoon néew si ñun Mama Lamine la ñuy seetaan si te ñii sax man dafa fekk sama yoon néew si man man boobu ma ñëw ñun suñu yoon néew si de Siteu ak Papa la ñoo suñu yoon bokku la laajal amateur yi ñu wax la dama laaj amateur yi ñun nii mooy nii laa koy eh? a ngi naxante Guinée la jëm Guinée Papa Sow Siteu noo ko gisee Papa Sow Siteu yàlla lamb ji yàqu yàlla na làmb jàmm ndax la làmb yàlla na làmb ji yàqu wala mën na fekk fekk ma voyage dana am nag incha allah ah waaw eh, sportif lañ que le maire gagne favori donc que làmb ji nag taxaw na Siteu dëgg la suñu waay la mais Papa Sow moo ñu yar depuis xale làmb ji taxaw na mais Papa Sow bu làmb ji taxawee bu bis ba Papa Sow yàlla na yàlla may mais yaru yarulu bi nii bu ko yi defee est-ce que combat bi dana ne. doy yaru quoi parce que gars yi ñoo tëgg ñun tëgguñu mais bu lamb taxee Papa Sow la ko dóor mu daanu déggoo ma de. wax na lu am solo bu lamb ji taxawee baar bi génn seen diggante mais yàlla na ko man bëgg naa nag Cheikh ma wax la lu garaaw combat man si Papa Sow sama mbër dama ko yàgg a bëggee barki sëñ Bamba am na ñu ma doon woy Papa Sow jàmm gën xam nañ li may wax naa wax loo xam ne nañ ko xool naa du dëgg. mais nag jëli yow waroon juux mais dama ne la Papa Sow c'est xam nga tax may wax nee nii may waxee nii xam nga tax may waxee nii ah c'est xam nga da a nekk ceedo nga mel ni sama waaji quoi xam nga tax may waxee nii a mel waaji xam nga tax may waxee nii a nekk may waxee nii xam may waxee sa waaji kooku bàyyi ko foofu xam nga may waxee nii da a nekk sadik may waxee moom ku nekk sa rôle fi nga war a sadikee da nga fay sadik Papis bu duggee si diggi géew sadik mais man ku ne xam ne boo fekkee sabar yi ma toog sadik laa mais bëriwuma dugguma si géew bi si tamit dugg si géew bi ko fa yàlla ko yàlla may ndam man sabar yi laa res si noo gisee waaw si ta Papa Sow di ñaan Papa Sow suñu borom suñu may ko baax di ko ñaan suñu borom dafa ko ndam parce que favori ku favori Papa Sow mooy favori moo xale bu yéeg yéeg la at euh, mbër moo xamante ni dafa yéeg ba ñëw toog Papa Siteu Papa Sow moo ko may sens mais Siteu am na qualité bu daan Papa Sow bu kenn fàtte loolu favori favori mën na ko jël ci Papa Sow mais nag gëmuma ko parce que Siteu champion la a Papa Sow am na favori waaw am na favori Siteu Papa Papa Sow mooy favori combat bi ah waaw parce tax moo jëkk Siteu si làmb buñ xoolee ci palmarès moo ëpp la ay victoire am ko ay nombre de combat yaa ngi dégg loolu lépp soo ko ëndee teg ko mën nga koo jox favori combat bi. d'accord mais favori nag ça ne veut pas dire que ne yaay gagné combat parce que Siteu même boo nekkee favori am Siteu dafa liggéey beeg si ci ñoom parce que résultat bu baax moo ko boole tey ak Papa Sow yaa ngi dégg. parce que bu defaloon résultat yu baax du bëre ak Papa Sow ndax Papa Sow bëre na ak Lac de Guiers bëre ay mbër mag ay yu mag. yaa ngi dégg daan lii ñii daan ko kon tey xale bu liggéey beeg si ci yow même boo nekkee favori nan ko bàyyi xel ndax si tax xale la boo xam ne nii man na làmb macha allah mën naa bëre am na ginnaaw te bëri na ay soppe ci làmb merci beaucoup Babacar maa ngi lay bëgg Cheikh Omar jaajëf jaajëf Siteu Papa Sow sa waay tëgg combat boobu Papa Sow dafa def benn dafa def dafa def benn exploit exploit bu doy waar Papa Sow boo dee xool bëri naa ñëpp léegi fi ne dafa toll foo xam ni Siteu dafay commencé jóg te dafay rampe di rampe di rampe di rampe ba egg si ci moo tax combat boo xam ne xaw ma Papa du Fall kan moo ko digal combat boobu mais combat askan bi la. combat askan bi la Papa mooy combat askan waaw. mais mais am na favori wala. bon. bu ma ci wax da ngaa ñeme bon bon. la wax moo ci nekk ku la wax. ku lii la nii am na favori da nga ñeme yàlla ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ tàmm nga saa yoo tëggee événement ñu gis si ay wëyu bees xam nga créé carrément yëngal Sénégal yooyu yëpp dina ñëwaat dama lay wax lenn Saara dama ko ne lamb jooju commencé ci signature contrat yeeg face à di nga ci gis loo xam ne lamb ba muy am ba léegi doo ko gis innovation lay doon lépp dans le cat du sport ba ci open press lu leer naa la. dina la mais c'est le président des promoteurs qui parle.